beneen affaire bi mooy affaire u clandestin bi immigration bi xam nga dafa xaw a sensible ci sensible boo xam ni doo xam looy wax parce que sooy wax yenn yi ñeneen ñi gisee ko nii ngay wax nii ñuy gisee ko nii mais balaa dara damay wax ak état bi man affaire état sax duma ciy wax par parce que li ma leen wax duma politique fu mu nekk nii néew ma la duma ko def mais gisaguma ki nga xam ni man war na maa jaral politique bis bu ma ko gisee ba mu doy ma mm-hmm. ma ne sénégalais yi dem leen ci kii mm-hmm. kii dina leen dimbalee nii kii dina leen jàppale nii te dinaa ci gis réussite mm-hmm. man ku may àndal rek dama ciy gis réussite loolu mooy waral lu ci bari boo leen ma gisee man man du ma ànd ak nit ku bon wala may ànd ak nit ku amalul àdduna bi njëriñ su la ma gisee ma ànd ak nit ba bàyyi ko rek xamal ni ci li mu ne moom a leerul ci li mu ne moo wóorul ci li mu ne moom a neexul moo tax may dem di la bàyyi ngay dem may dem ak sama yoon parce que dignité dafa am solo valeur dafa am solo man ci ni ma mel nii noonu laay deewee barke alxuraan Basiru Kam yi mi ngi may defal lu ne mais mënumaa jaay lu ma saf tuub Serigne Touba Xaadimu Rasuul loolu rek la mën a jaay dañuy toog ay weer duñu déggante Abdourahmane Balde Ndoura mi ngi may defal lu nekk ci àddina sama xarit la sama nit la mais duñu bu ñu déggantee benn yoon la ñuy déggante ci weer bi Pape Diouf sama nit la sama lépp la sama mag billaahi wallaahi tallaahi bu ñu déggantee benn yoon la ci weer laaj leen rek barke alxuraan tere laay waxee karaambooj damay toog ay 6 mois duma ko dégg te saa yu lim ma bëgg a jox jotee wala ñu war a déggoo dina ko jot dinañ ko dinañ ko dégg dinañ ko dinaa ko jot lépp nice te du tax duma ko sonal ci dara parce que li may am yàlla moo ma koy jox da koy jaarale ci ñoom rek yaa ngi may dégg ay ñoom Aziz Aziz a ngi nii damay toog Amérique du ma ko dégg du ko message du ma ko woo mais su ma ñëwee fii gis nga ko tey loolu lu nekk rek doo ko forcer relation kenn du ko forcer ñoom ñoom ñëpp samay xarit lañ ay Youssou Ndoye damay toog yenn saa yi du day yàgg man dañ naan mag ñoom dañ naan sax man aw ma kóllëre comme nii aw ma kii aw ma benn jot waaw këcc dee ñu woo dee lu woote fils de lu xam nga dee lu woote Pape Diouf rakk dee ma woo Basile mi daf naan ma gëj naa laa dégg de ma ne ko billaay bëgguma laa sonal te ñii dañoo nekk ñoo xam ni. Mm. soo leen wooyee téléphone rek seen xol dafa rafet rafet boo xam ni balaa ñuy couper rek. Mm. foog ñu ne suba ñëwal wala. ci kanam tuuti jaar fi. Mm. pour defal la dara. moo tax du ma bëgg di leen di leen woo muy nduuraa bureau su ma soo fa ni comme nii ni ma ñëwee nii damay am jot. damay bëgg a romb bureau mais damay xam bu ma fa yéegee par force dina yëkkati loo xam ne xam nga damay rus loo man sax te bu mën na la ko jox tey suba nga jaaraat fa mu jox la ko yéen ñi ñàkk xel la moo tax yu bari du ma koy. déggante pour ma leeral ko fii ñoom ñu xam loolu. Mm. loolu kese la mais samay nit lañ samay xol lañ samay lépp lañ. kon état bi daal état bi nañu jàppale ku mel ni Basirou Ka. Mm-hmm. jàppale ku mel ni Ndoura de jàppale ku mel ni Aziz Ndiaye. jàppale ku mel ni nitu social yi nga xam ne leer na leen fu nekk nii ñoom mënuñoo xam li metti jeunesse bi dañuy dégg rek jeunesse bi di kaas te jeunesse bi sonn nañ trop. Mm-hmm. jeunesse bi dañoo booy maa ngi ci dëkk bii deux mois jën bu baax sax mënu ma kaa lu garaaw laa lay wax te yooyu yëpp ay détails la après jën bu baax mënuma xaa lekk jën bu baax balaa nga koo lekk da ngay dem fu sori pour wut ko fa c'est grave sa c'est grave c'est grave ravitaillement moo njëkk lépp Amérique lekk fa gën a yomb dund moo fa gën a yomb ak fajo mais xoolal fii jalis xoolal jalis bi pour lan jalis ay soixante mille ay soixante dix mille mais loolu dafa metti nañ jàppale doomu aadama yi nañ xool nu ñu def waay nañ xool milliardaires yi nañ génnee seen xaalis bi teg ci table bi jënd ay machine u jalis jàppale jeunesse bi boo jëlee benn somme budget jox Basirou Ka jël benn somme budget jox Ndoura wala nga jël benn somme budget dégg nga ne Ahmed Diop wala kenn day def ay social ci dëkkam nga jël ko jox ko ñoom ñu tas ko ci biir jeunesse bi dina dox mais état mënul lijjanti li nekk ci biir jeunesse bi yépp Ndoura li ñu koy jox lépp na jox Basirou mi bu la neexee Ndoura moom mi ngi def sans état mais lii dafa rafet rek nga tas ay mbir def ko ci jeunesse tey gis nga benn Lamine Lutte TV mën na dugg ci jeunesse bi yow mën nga dugg ci jeunesse bi nañ xool ñi nga xam ne mën nañ dugg ci jeunesse bi jàppale leen financé leen DER am na benn affaire bu ñu naan DER DER xam naa koo xam ne déposé dafa kayitam xaw ma ñaata at pour financement munul fexe ba jot ci te ñu ne jeunesse bi lañ fi nekkal nañu jàppale jaam ñi. kon daal li nga bëgg a wax li ñuy wax ñoom ñu bañ ko politiquer te jàppale. te jàppale askan wi jël xaalis bi tas ko ci biir nit ñi nga xam ne dañuy des social. nit ñi nga xam ne dañuy dugg ci biir jeunesse bi di def social ñu leen di dégg ñu tas xaalis bi foofu ñooñu jàppale jeunesse bi tey ku ci nekk bu jàppalee xam rek Sénégal jëm kanam lépp dina wàññeeku. gaal gi doone kenn ku ci yéeg du lu baax nag du lu bon xamul du lu baax mais tamit booy xool jom moo leen ci yóbbu. te ci kër yi lañ leen di njëkk a beddee dangay gis doomu jàmbur sa kër ñu naan góor gu ne léng góor gu ñàkk jom góor gu def lii yooyu boo amee jom dëgg waxuma la gaal waaye rey sa bopp ngay def mais li ma ci metti rek mooy dañuy yéeg ci gaal yi jamono ji dem ba foofu ñu départ leen wala du ñu egg maanaam pour mu leer léegi gaal yi kenn eggatul kenn eggatul ku la ne egg naa ci gaali jamono ji waxul dëkk kon li may lancer jeunesse yi mooy ñu toogaat bàyyiwaat seen xel ni tekki fii jombul kenn Aziz Aale Ndiaye dama koy jël référence Amérique la njëkkee di raxas bool te Amérique ba muy dem Amérique la Amérique gën a neex di raxas bool di fomp ay ndab di raxas ay kaar tekkiwu fa daf ko fa ne ñu ko ñëw fii fii la tekkee macha allah Ndoura Balde may tudd nii ah, France la njëkkee jàng fa bay bëgg a dee wut liggéey ba sonn amut sonn trop ñëw fii fii la mujj tekkee Tyson mi ngi nii yóbbu benn rakkam rakk jaa ngi foofu Tyson a ko gën a tekki te fii la tekkee Tyson Balla Gaye mi ngi nii yóbbu benn rakkam Lamine xam nga ci dara rakk ji fan la mujjee ñëwaat fii nekk ak moom dama lay joxe exemple Pape ngoom Sedima Babacar Ngom ngoom ko Pape koy dégg ci ay tool la doon fanaan moom njabootam sonn bu bëgg a dee mais dara xëyul sotti benn kéccub mii fu ne laa jaar ci àdduna fu ne laa jaar yàkkamtiwuma dara mais tey maa ngi sant yàlla parce que sénégalais yi nag ñu ci bari dañuy jékki-jékki rek gis caméra tiim la rek nga yor sa dara di sutura rek ñu fonne lépp tey la sotti fekk démb caméra topp la woon ñu bàyyi xel loolu bu baax kenn neewul amu leen jom kenn neewul ñu téye leen mais tey tekki rek leen tax a jóg te da ngeen a war a tekki far force ndax góor gu ne léegi toog te fajoo dara baaxul mais nag dama leen di rek ñu def ndànk tey dal xool solution parce que tamit jeunesse bi di wàññeeku nii di dee arrangé wu réew mi te dooleelu réew mi te dama leen di wax benn message kenn eggatul maanaam dem bi kon amul so amul njëriñ parce que munoo jël sa xaalis 400000 am ko ba pare dee wala ñëwaat loolu moom amul njëriñ dee wala ñëwaat moom amul njëriñ kon dañu leen di lancer waat appel ngeen toog dal jël seen xaalis boobu toog xool noo leen ci def lu ndaw jéem a réagir ndax dem egg amatul dem parce que chargé nañ géej gi ba mu fees dell gis nga tubaab bi maa ngi déglu keroog CNN. Mm. chargé nañ siège géej gi kenn rombatul benn bato rombatul te da dem dajeeg tubaab bi tubaab bi mbëkk la nga dee wala ñu jàppale indiwaat la amul sens kon nañ delloo si waat suñu xel bu baax a baax.